asalaamaaleykum soxna si da nga def ndey kumba ah, ah waay waay laaw la cat waay laaw la ma bët bu aay Baye Diop ah waay waay ak si yow mi gën a sañse ah mais non Baye Diop da ngay tooñ ko ah waay waay waay dee non man chaque jour damay sañse ak sa tey da cee law la cat axe law la ma beut bu ay gunor gu tungom ay domam di dem ciil bu ngank ay domam di naw xat bu uuf ay domam wëcc ma ah, xam nga tay lan motax mo ma dama am d'entretien d'embauche yow mi am nga liggey ah, sama xaalis sama occasion ci kër gi fay mako so sa mala ma la Baye sa lamine baaxul d'entretien d'embauche moy da ngay dem pour wuti liggey dem waxtani ñu jël la nga liggey leen rek nga wara defal muy nga ñaanal ma waaye loolu dama koo déggul rek. waaw loolu la quoi ah, xam nga ni ku job, ñaanal kay nag ah. te ci ñaan gi nga fekkee. te Baye Diop bis ma ah. amin rek. xam nga li amin. nel amin man sama occasion bi rek. bàyyil wax jooju amin bu baax. ak si bay nu kum fii nuxuri di ci kër gi. guppo gupp nga ak sama njaboot. wa maa baynakum nuxrijukum taata nuxuraa ilaa sars. Baye Diop ak ñaan da nga koy diw diwal ñaan gi àggsi. Baye Diop yoonu marché farati la. jëlal nii rek. lan nii sama loxo bi jël nii rek. Baye Diop ñaan nga. bo diwal diwal àggsi. àggsi nii ngay doxee. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bonjour père kooku na nga def. ça va woo tey. aujourd'hui je n'ai pas travaillé place jàmbur booy ñëw da ngay yëglu yow da ngaa waroon a fan yaa ngi tappale de. sama dépense. ndey kumba ndey kumba eh ndey kumba ndey kumba sentiroo dara ci man ak fi ma toog sama kurus seede yàlla. seede yàlla. pétale mooy seede. loolu pétale la xamoo balu fital ndey ku ma bi nii la def tabarkalla macha allah ñu ne ko ñëwal ci kër Baye Diop ndey ku mu mel ni ouragan ni mu ëppee li mu yëpp di wëndeel di wëndeel ba ne cabax ci kër gi. Eh. Diop dépense bi ngay wéer ci ay miracle ah Diop Diop sama dépense ngay wéer ci ay miracle. Eh, eh wuy ma kooku di génn dégguma ne ni liggéey lay uti ji. <laughs> yaa ngi commencé nag di yàq nag bul wax samay secret bul wax samay jugal. Diop hmm? jugal. Ah, damaa bëgg nga topp ci ginnaaw xëy lay uti fu mu amee xëy na am gont te fu mu amee liggéey rek nang ko fa amee toppal ginnaawam gaawal. Diop gaawal gaaw fexeel rek wuyu ma. xaw ma loo ko tegtal mais moom fu mu amee liggéey rek fu mu amee xëy rek na nga fa am gont jóob xaw ma fu mu jaar toppal ci ginnaawam toppal ci ginnaawam yow xaw ma nu ma la war a def rek. tey kafe kafe la café c'est ça n'a ça n'a pas marché quoi. marché la amul jaay jaay dafa dëkk bi dafa metti dafa lan c'est très très dur ma gis nga nag gis nga nag gis nga nag gis nga nag ma xamal la benn mbir waaw gis nga ci gëm suñu borom la bokk boo daan di liggéey di jaay muy jar boo toogee benn bis nga jaay jërul jëral démb teg ca tey ndax dee gis na ma jërul démb teg ca tey du bus bu ne lay neex de du bus bu ne lay neex tey day neex suba mu naqari bu tey naqaree nag jëlal démb ak nga jël ko ko ci kaw ndax nga ma xarab eh, sama trois tâches dafa reer. dalantaas ah dafa reer gisuma affaire bi dafa reer. wëy li may wax sa ñàkk fay waay bàyyi ma waay ñetti man ñetti kaasi café ñetti kaasi café nga wax. waaw waaw c'est perdu avec moi. ñetti xanaa du kaas à zëte yi. waaw waaw ñetti ci réer. mais eh, trop c'est tout c'est perdu. waay bàyyi ma waay yow ñàkk fayda boo café gi doxul nga jaay dute. dé déggul ma maanaam ici ça va chez toi actuellement ça va. c'est kan c'est toi waaw ici là ça va mieux avec Neni. Ici, ça va mieux Neni. avec sa Neni. ça va mieux avec sama Neni sa yoon ñëw ci. ah ma ni gardeel sa café ba xam mi ngi doxam doxul. samay nen bu man ah. sa doxal le villageois qui a quitté là-bas pour venir ici toi chez toi ça marche. tu sais ma xamal la. waaye yow lu tax nga teg ma bët rek. eh déggul ma rek. wii sama rek teg ma bët. ah jam de. je te je dis makamal la maintenant quelque fois fu il faut que nga nga fay xaalis loyer. kër gan ah fu ñu nekk noonu. là où je trouve là où ma ñëw dox bay bëgg a dee ñàkkatooy képp ñëw nga ma dalal ak jàmm. ah Sénégal réewum teraanga la ci teraangay moom yi laa di dalal la. Eh. tey nga ñëw taxaw naan maa ngi da naan dangay fay. kuy fay man dangay fay. Sénégal teraanga fii la. eh fële loolu amul de téléphone. Eh, yow xamoo fu nu Guinée la loolu amul de ak Guinée amul teraanga ko ah. ay yéen kay li tax ngeen bàyyi Guinée daw yéen ci réewum teraanga bi ah. man na Guinée amul teraanga man na man na fii la de am da ngaa gis li may jaay nga teg ci bët waaw da nga cee teg bët mais de da ngay fay location boo ko ci dul teggi yàlla da nga fay location li nga ci teggi bët nga fekk ma fale da nga ko ci teggi da nga may fekk fale teggi la wax naa la da nga ma fekk fale fayuma wajo dalal ma ci jàmm ne ma Sénégal réewum teraanga la ci teraanga joji ngay dekk ci kër gi do fay fukki dërëm tay gi sama nen yi di dox nga bëgg ma fay do fay kii mo ñaan way ma tous soxor ni la ni def dan la jël yoro dara nu ne dañ lay dimbali bo demee ban gis touti rek ngay ñam bo dé ñam rek nu dédé déedéet waro ñam waro ñam ñëw dafa nga ñam ñamal waro ñam limay ñam fiir nga may bëgg a limay ñam ci sama nen ini nga ma bëgg a ñaata yoon ba soxor thank you